bis bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigal lu sëriñ bi mooy màggal di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fedd indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy bi Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci lañ doon tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def wérante gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggat gi bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoonteeg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew السيقكم ني بوكري نك سي بير ادنا سيقكم وادنا كون مونو نيو بيتو نيكو شيخ مو دون تخا دي واخ موي لو ميلني كولوك انترناسيونال بيغا خامي بار نينت ات لاي بلاك في ادنا سون ñi nga xam ne ndax xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam da tax nañ jël kaala bi ko muuru ndax laa dara la wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mu ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkiteel bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale gër te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér topp rek mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi am mu jot nit ñi dañuy yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne dingawaat yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i setlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bees boo xam ne dana ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi. mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa sensé la jox ministère bi ko yor digal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm. di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Serigne Touba la ñu àgg ci jàmm. génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ci rafet jot ngir xam ne sëñ Tuubaa kat euh, mbiram suñu borom feggal na ko ci aafatu ak kon suñu xel war na dal